personne la bali wax leen la bali ñëwal la baliw fas taxuta fasa raw fasa nga ca kanam ku la séntu yaa nga ca kanam urat kisib wayaay urat kic rat Leewtoo TV ki rat san kit urat kit patas ñoo xew Leewtoo taj cawra rek ki jëriñ wax leen la bali ca ca kit wax leen la yaay waalo waalo Jackson yaay waalo waalo yaay borom waalo Jackson yaay borom géeje waay lu yàq dëgg la dinaa ko wax wax leen labali ku ci bëgg sa yaay labali Jackson labali ey labali wax leen labali Jackson labaliw fas taxut a fas a a nga ca kanam ku la seetu ci ginnaaw moo cay xala des yaa nga ca ki rat ki jabra Leewtoo TV yéen a xew si jamono jar kit kit ah ja coro la ki jar ñu dem waalo ñu dem waalo waalo waalo waalo waalo waalo mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ngi fii Guédiawaye li ñu feen di nag mooy Thiam production moo tëgg lamb samedi 14 décembre es jom Iba Mar Diop Pape Ndoye bu Faas Racky Lagros Jackson Senior Guédiawaye mbooloo ñu fekk Jackson fii tey ci fiefam Guédiawaye muy def open press am di waajal bésam mbër ñu ngi lay nuyu di leen ziar. waaw Babacar ginnaaw bu ma sant yàlla bu baax di jël seen bi sant sama ñaari waajur di san suma sëriñ sëriñ Moussa Fass dafa ñaanal yàgg lool di wér waaw di ñaanal ñëpp di leen nuyu di ñëw di nuyu waaw maa ngi waaw. Ah, dafa am laaj bu ma lay laaj pour sénégalais yi mu gën a leer ci ñoom Jackson géejuwaay mbooloo la ne Jackson ñaata combat la bëri ko ñaata ndam la ci amago actuellement. waaw géejuwaay mbooloo la nekk am na 11 combat waaw am am si 9 victoire 2 défaite. nga jël combat ak Pape Ndoye daaw nga def ñaari combat yu marqué sénégalais yi sa digganteeg bul laal sa digganteeg sang les tigres daan leen ay jël yu doy doy waar mu mel ni combat bu yooyu nga def daaw est-ce que moo leen fi nga nekk nii. waaw ñun làmb yàgg nañ ci def preuve amaana gars yi loolu lañu gis daaw mais depuis tout temps bi léegi ñooy bëri def preuve ñooy sant yàlla bu baax nag ñun mënaguñ dara ay tout temps nañ ñooy doon tàmbale mënaguñ dara si làmb dañuy teete ba léegi nii di ñaan yàlla yàlla na yàlla def bis ñu man ñoo si yoon bi bis dina jot ñu man mais mënaguñ dara incha allah. ki ngay dajal xam nga ko Pape Ndoye. waaw xam naa ko bu baax. ci nan. xam naa ko si bëre xam naa ni gëree la xam naa ni champion la moo tax ma jël ko di nga ñaan di nga wax nag waaw gerte gaay ak waaye mu xaar dina dëgal boppam suur tànk yi mu dëgal boppam suur tànk yi ne nga yaram bi ngeen ñime jam-jam yi man Sénégal xam naa ne yàlla defal na ma bëre bu sama man man sax mais man noonu yàlla mais dama bëgg woon ko bàyyi wan ci xeex waaw wan ne mën naa nga bëgg a xeex waaw dama a xeex bu ma si bëre hmm. am a laaj ah, ñu gis ni Pape Ndoye kon li mu wax nee na doo adversaire potentiel am nee comme lamb boolewu leen année blanche kese moom moo leen boole looy wax foofu waaw Pape Ndoye bu waxee loolu noonu day wax lu ko neex rek yaa ngi dégg parce que Pape Ndoye boo teg suñu adversaire teg ay adversaire am teg sama parmese teg parmese am duma moroomam sax si parmese am doon mu ne combat bi du passé cinq minutes nee une minute sax doon ko am ndax parce dina la attaqué dina la koñe dina la gagné incha allah. waaw wax ko loolu business boo xam la man sama business sama business la te bu jour ba dinaa lu ma indi man du ma sonn reporter naan ay dugg na fii génn fii jàpp na ko daan ko mais sama lam 11 combats laa bëre mosul am une minute waaw kon bu ne dee gaaw rek kon moom loolu lay gën a neex rek si man. su ma la seetaan nga ko mu bëre seetaan nañ la nga bëre yéen ñaar boo xoolee sa bopp xool ko kan moo dàq bëre. loolu kay yéen laa koy laaj yéen non déet ñun dañuy laaj yaa ñuy wax Jackson ku dàq bëre yéen ñaar Jackson. Pam Ndoye ma ne moom comme nan la mel ah man maa université moom muy primaire. yaa ngi dégg Pam Ndoye man man moom boo waroon xool moom primaire nekk man ma ne université mën naa ko jàngal bëre fu mu ne fu mu ne primaire nekk man ma ne foo ko teg loolu sama man ma ak sama gëm-gëm ak lu may wane ci làmbu yéen ñi ma laaj yéen nga xam loolu noonu waaw Jackson est-ce que yaa ngi Pam Ndoye mi nga xamante ne day ñëw bëreem day ñëw song la daat la est-ce loolu man damay song wala songu ma man damay song damay bëre lu mu indi fekku bi la 14 incha man laaj la leen Pape Ndoye écrit bi mu nekk sénégalais yi dañ ne écrit bu mag l'écrit Fass yéen ñaar bu ñu xoolee écrit yi tey est-ce que doo am benn njàqaare ci par rapport ak mbër yi koy ëmbëg parce que raku lagros ay Gris Bordeaux ay Papa Sow encadrement ñum Tafa Gueye loolu doo du def ci réew dara man ma dalee bëre ba léegi ay écrit mag laay bëre ñu surtout ma écrit affaire du si écrit du si ay école de lutte nit ki laa gëm-gëm bi waaw yàgg naa bëre écrit mag ay lamsaar dugg naa fa duggaat fa ay parcelle doo dooraat dugg naa kon du question ay écrit si nit ki la quoi waaw Lac Rose du dugg Gris 2 du kenn du dugg ñun ñaar ñoo ne si biir géew bi yaa ak moom rek waaw maa ñaan yàlla suturaal ma si bu baax waaw gis nga ay ñoom Moustapha Gueye ainsi de suite mais yow ay booy dong ñoo la entouré est-ce que loolu du am dara lu mu def ci yow waaw booy ñoo ñoo mu ngeen gis mais mag ñaa ngi si ginnaaw ñoo ngi may conseillé dama xelal man lu may wax chaque jour rek man tout tàng laa lu may def lépp lu ma koy defal mënu ma dara si àdduna mbokk laa tout tàng laa damay jéem ba léegi nii mais grand frère yaa ngi si ginnaaw doon feeñu amaana nekkul ñu mbër genre affaire yooyu waa mbër yi ngeen gis mais mag ñaa ngi si ginnaaw ñoo may xelal bu baax. saison bi ubbi na waay mu ngi jëkk a waaj a grand combat muy yow loolu nooy gàddoo yan boobu dimanche samedi incha allah. waaw ñun làmb doonul nekk pression si ñun parce que ñun maak ñu bëre amuñu magu mbër amuñu pap mbër amuñu njaay mbër suñu fit ak suñu xam-xam boob ak ndimbalu yàlla mooñ boo si làmb te tout temps ba léegi ñooy kon géew duñu si tiiti mhm. loolu du business adversaire du business si ñun yi côté mobilisation bi foo ci toll. waaw mobilisation kenn du wax Jackson man mosuma dem làmb ñu xeeb ma fa waaw promoteur ñoo may dégg amul promoteur moom ma tëggal xeeb ma waaw loolu moom du problème moom laay wax rek ñu am jom rek comme dama koy fekk si mu mobiliser moom tamit stade bi dama bëgg quatre heures ñu tëj ko waaw bu defee ni ma def man quatre heures ñu teg stade bi incha allah waaw. kon su ma la déggee sa mbooloo moo ëpp mbooloom. fuuf sax loolu moom waaw képp mbooloo yàlla na waaw càmm production dara bu baax parce que tamit tout temps la jël wecciram xam nga ko def si ñun si ñun amaana lu ñu magee sax bëru wala bu ñu maguñu xam ñoo ko ñaanal jaamu di ko ñaanal mu réussir si bis bi xam nga di ñaanal mu am dem bay tëgal roi des mais mu nekk man ma doon roi des arènes fu mu jàngee bëri man jàngu mu bëre pen dimbalu yàlla rek yàlla may dimbali chaque jour am na ñuy wax ne dañ la dañ xaw a niroo lekk Modou Lo yu mel noonu quoi est-ce que yaa ngi dégg loolu waaw maa ngi koy dégg bu baax a baax kay waaw maa ngi koy bu baax Modou sa idole la wala sa lan la non làmb la nii rek moom xam naa la moom tamit Modou Lo maa ngi nii bu baax a baax ah. parce que gis nañ ni combat bi macha allah promotion bi doy na par rapport ak les autres combats yi nga xamante ni moom moo passé enjeu bi fu mu toll. non ñun bis du rëy si ñun parce que dañ mbabat bis di ngàdd si ñun mais léegi bis dootul rëy si ñun Pam Doy adversaire la taw bët sax man bëri lu ma Pam Doy sans tool yi ku bëgg doon roi des arènes bëgg indi du moom nekkul moom kay bàyyi moo xel sax parce que Serigne Moustapha bàyyi moo xel sax te bu jour waa nee naa wax kii bàyyi moo xel looy mujj a wax. waaw di sant yàlla di sant ñëpp di sant waa buun bu baax a baax a baax di sant waa Guédiawaye waa Rue 15 waa Sariya bi maa leen sant bu baax a baax di sant rungaas yi di sant mbër Guédiawaye yëpp di sant suma doom de Pape Thiam bu baax mi ngi may jàppale si contact yi di ma jàppale si entraînement yi di ma conseil xam nga la la guerre xam nga mbër Guédiawaye yëpp Balla Gaye gaa yëpp xam nga di suma coach Pape Pape Pape Omar xam nga Père Dora président Pape Fall di wax gars yi nañ jàpp Père Mbaye Jaxate xam nga ñoom Laay Diop ñoom Baba ñoom Saaro xam nga waa Rungaas gi maa ngi bii baax na ñëpp ñëw waa Boune Rue 15 na ñëpp ñëw di woo ñëpp di woo waa Aïssa Sanji di woo ñoom Naar xam nga maman Aminata Niang maa ngi woo bu a baax a baax xam di woo ñëpp baa war maa leen di wax bu jour waa di gis lu garaaw a garaaw lu yéeme lu doy waar incha si kàttu yàlla kon nag yàlla ma yàlla may fekk tal pam ndooyu maa ngi ko ñaanal jàmm uh-huh. yàlla suturaal ko may ko mu ñëw pam maam moom jàpp na si bu baax di woo sama suba réeb la 14 4 heures ñëpp a na stade di woo waa Cambérène bu baax a baax waa Cambérène ñoom Sago xama ñoom Njoonaan ñoom Alsaan xama ñoom Ahmada waa Jaam ngeen maa ngi woo ñëpp di béy ñëpp waa Waalo maa ngi woo ñëpp waa Fass Mbaaw kaar dañ teel a ñëw daa la 14 laa la wax la woo fii nii tey la lan tey la tey la ñaata tey la bu ma dàq jee doo ko doolee di bu taxawee doo ko doolee di kon nañ ko yeew foofu bu suulee tàngee rang muy gaaw lay doon ba samedi ba